mu mel ni c'est la première fois un négro africain taxaw fii wax ne raditu ani yi wa an xayri xalxihi wa fii matxihi jawastu kaabanu asar ñu dem ba mu yàgg ñun xiif nañ di lekk ay barget ku nañu jox la loo xam ne mënatoo muñ xiif bi nun ak sëriñ bi tey boo nu doon wax dimension Serigne Touba ci li nga nu ci mën a rotal murid yi dégg ko lan nga lay wax ak li nga li nga jàngat ci yoon sëñ Mamor sëñ sëñ Mamor bii de <laughs> yaa ko gisal sa bopp àll bii de wax dëgg yàlla nga ne àll bu mel nii moom man maa ngi ciy doog a teg sama bët fii de ku fi am ñetti fan ku fi ñetti fan <laughs> te te te moom buy jiwoo sa borom ko ko moom moom mat naa siraat kum doon <laughs> ànd bi di moo tax kuñ fi mas a indi ci gaa yu baax yi moom fii la des fii la des digg foore bii nii nga bàyyi fi jëmm joo xam ne waruloo ko lekk waruloo ko naan waruloo ko bërëb bu mu dëkk te àll bi boo ci duggee lu ne ngi ci ci lore ak yi gaañe ak yi ak ak yi nga xam ne day matte xeeti godd yeeg waaw yooyu nga xam ne te Sëñ Tuubaa doon jëmm joo xam ne moom dafa bari yoo xam ne da ko jaayante fi ne tay jëmm la joo xam ne bokk na ci wax na ne bokk na ci yim jaayante mooy du wokkutu du wokkutu du faxas lu koy mat du geesu du toog te jublut penku du du du rey dara itam du lor dara ci loxoom ah. ba tax na fii moom fii ne moom wetam sax ngay xaw a def da nga xam ne fii moom da nga xam moom lu fi doomu aadama mën a nekk juróom-ñaari at ak lu topp te nekku ko ci mën a ne xam la lim nekk ci biir nit ñi lu néew néew la te amu fi mbokk amu fi kenn ku koo xam ne moom la moom la moom moom la xam wax na ne bis ba mu njëkkee dégg ñaar ñu làkk wolof keroog nee na da ko fàttali réew ma ne mu toog diglu leen bañ àggal ca la way nag xësidaam googee indi na nii usni ala xayri mun aymi wala ashtaki lil xalqi min faqdi an'umi ngok moo tax jëm suñ tubaabam jëmm la joo xam ne moom baat bi mu di wax naa amul moroom baat bu wér ngi noonu loolu loolu baat la boo xam ne dara gën koo dëggu waa jëmm la joo xam ne li li li mu xaja li xaj ci dund gi li mu dékku doomu aadama kese mënu koo dékku moo tax mu daa wax waxam joojee ne xustu xayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat li udni xayri fii moom dëkk dëkk bi fi ne te lu dara itam xam nga jëmm joo xam ne warul luñ la dara ne man gis naa mbindam moo xam ne wax na ne tumuranke naa ci ak col ak ci lu muy jëfandikoo nee jëfandikoo naa fi loo xam ne ñama bàyyi ñi gën a ñàkk lu ñuy dunde dawuñu ko duñ ko jëfandikoo nga xam ne woor na fi weer woo xam ne wax na ne ab xaal la ubbi saa yu dog jotee mu dog ci ba weer wi jeex fi ne li lay gën a jaaxal mooy waxtu julli yi waxtu julli sax moom xam nga loolu xar baax la koy xamee moom waaye bis yi ak weer yi nan lay xamee weer wi weer wi kii na loolu moom nee ba mu agsee rek la tàmbali di natt weer yi ak di ko bind ngir weer wu dee mu xam ko kon sëñ Mamour fii moom boo fi ñëwee moom da xam ne maanaam nit ñëw fi am fi ayu bis rek ci digg àll bi ñu bàyyee la sa bopp waxuma la sax say noon moom nekk la yow di la lor ak di la di la di la xajamal sa dund waaye bàyyee la ak sa bopp ci digg àll bii am fi ayu bis a delluwaat sa kër ci jàmm loolu xar baax la moom xar baax gu rëy la <laughs> moo tax Sëñ Tuubaa amul morom yal na ko yàlla fayal ñun nag xëy na mënuñu la mënoon gis nga ban jógee ba léegi noo ngi noppalu ak taxaw ak waxtu ne ñuy ñuy ak di xewlu ni ko waxee. fàggu ay xéwal yu bare bare bari waaye foofu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tolluwaayu aji néew doole loolu lan man rek mooy di ko bëgg garab yi nga gis gaa yi ndox yi ñuy barkelu ci lu ñu romb barkelu fa itam garab yi taxu leen a jóg jëmm jëfi jaaroon moo leen tax a jóg waaw mooy wala qad amurru ala la imi wala qad amurru ala diyaari diyaari layla uqabbilu dal jidaara wa dal jidaara wa ma xubbu diyaari saxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara waaw jëmm jooju moom la ne xeeñtu xam naa dañ koy euh, noppal waaye fi mu bàyyee rek mbokkam mu baax mi di Serigne Baye Dame di grand conférencier ci euh, làkk yu bari waaye di sëtu borom saam Mamour Diarra mu mel ni maam ju tedd ji lañ indi woon fii euh, mu daj fi coono yu métti sëriñ bi gis nga fi nga romb li ma laaj euh, sëriñ sa mbokk mi sëñ Ahmadou rek muy barab yu doy waar yoo xam ni koo bëgg ci moom noflaay yaakaar naa doo ko indi fii ana lan nga jàngatee yoon bi ak euh, ban message ngay jox murit yi ci pas-pas ak dimension ban lan wara tegaat ku tedd gis. jërëjëf maa ngi lay ñaan nag yàlla fay la ci yittewoo gi nga yittewoo mbiram mi ni ndax yittewoo mbiram fi ne nii amul lu ko ëpp tiyaaba ndax koo dimbale ba mu xam ko rek yow jariñ jariñ ko dafa am mbokk yi ma ci doon waxtaanal léegi far nga ñëw laaj ma ci maanaam day mel ni xaw naa doon farata ci murit bu ni mu ñëw fii ndax buñ naan na ndakaaru am na nga koy ci tele dëgg la waaye nga dem ba ndakaaru doo bokk ak ko gis sa télé ba waaye nag bëri na murid yi lu ñu wax loo xam dañ koo gëm te muy dëgg waaye boo leen ko laajee muñ koo layal waaye boo ñëwee fii dañ ko mën a layal li ngay dégg ñu naan Sëñ Tuubaa amul morom du fanatisme de waaye ñun ñëpp xam nañ ne boo ñëwee fii coono yi fi ne ñi ngay dégg ñu leen di nettali Sénégal ak fan fu mën di doon baax nañu lool cër yàlla yu mag lañu am. waaye ñëw fii am fi lii mu fi am man koo dékku delluwaat moom logiquement ci raison rek mënuñ gisuñ ko ko man mais da ngay xool say noon yoo xam ne nii ñoo yuli fi réew mii nga xam ne ñaarte na Sénégal donc population yu bëriwut ñaarte na Sénégal ñu yilif Mali Côte d'Ivoire Sénégal yilif lépp ami ngànnaay jëmm ju tuuti joo amut dara dara lu ko taxaw maanaam Sëñ Tuubaa dañ koo tooñ tooñ goo xam ne li mu doon wax naan zalamtuma la abdal abdallazi laa taxim tooñ ngeen jaam bi nga xam ne du fayu waaye jaamu ki nga xam ne moo koy fayu ñu indi la fii biñ ko fi indee juróomi at nga xam ne indi la rek bàyyi la fa léegi ci biir bato bi fam jëm moom xamul nu mu mel xamul ñaata fa at la fay am yan condition la fi fekk waaye moom bi mu agsee rek dafa sant yàlla ci féex gum nar a ngir mission bi mu bëgg a def ngir ñun ñu mucc am barke bii ñu am am jàmm ji ndax da woon wër moom bu ñëwutoon fii yow mii ak man mi yeneen tur la ñuy tudd maanaam duñ am jot gii ñu am ngir mën a jaamu yàlla kon moom dafa xamoon ne am na luy xew moom na ko yanu ngir nit ñi mucc da ngay imaginer ku toll ne Sëñ Tuubaa nga xam bañ koy yóbbu fekk na mu seexal maam Serapha jox ngërëmul yàlla sëñ Daam Abdourahmane Lo jox ko mag ñu bëri ñoo xam ñu feesoon dell ci yàlla la ñëw ci moom jaayante ak moom mu am lépp lépp ci barke nangu ko faa bàyyi ngir jaam ñu mucc mu ñëw maa yomb cinq ans yoo xam ne nii néeg bu fanaan sax amu ko lool ci toroxal as gor am mbaar la yoroon moo xam ne nii dara waru ko moom li mu yitte woon mooy liggéey bi mu liggéeyal yonent bi salaatu na mucc nga jóge fa làmbare na lépp lépp juróom-ñetti at bu doonoon kaneen mën nañ koo layal ne wax dëgg yàlla yëf na naa métti loru mën na fay bëri na maslaak tubaab bi dellu àggale bi liggéeyam waaye moom dafa am garanti nag ngoonu ajjuma googee nga xam ne ci la bind xamitu euh, ma yansi mu ni dara di xasbunallahu wa ni'mal wakiil ci la ko yoote salaasam wax ne ko wëyal bul ragal lor lépp lu nar a ñëw danaa la ko wax moom nag mu xamle ne ruu gi sàkku ko bay xam lu ma àttan waaye luñ ma teg yaram bi dana ko àttan kon sëñ Tuubaa ma amul morom ji moom yëf yi mënta jeex waaye amul morom ji lees mën a layal la dugg daanu kat koo xam ne nii da ngaa fàtte sa bopp ngir jaam ñi jëriñu te la nga bëgg lépp am nga ko kon nag ba mu amee ngërëm di mën a joxe ngërëm lii mu ci teg kon kenn xamul fu mu yem li ko ci yàlla fay mënoo xam fu mu yem sëñ Abibou mbay benn benn ji génn na eh, jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf ci xam-xam beeg lépp sëñ Abibou de wër nga àddina àll bi nga romb ndax mos nga koo romb est-ce que fii logique na nga wër fi indi nit pour bëgg ci moom nof la euh, Mbaye sëñ Mamor euh, am na dëkk yu bari yoo xam ne dem naa neen ci àddina wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax dem naa Guinée équatoriale fa laa gisee garab yoo xam ne xëy na tollu neen nii ndax garab yooyu dafa mel dañuy concurrence pour mën a gën a màgg waaye lu mel ni wax dëgg yàlla mosumoo gis ndax euh, près de mille kilomètres nga jël fi doomu aadama doomu jàmbur taxale ko waa këram yóbbu ko rek ne danga koy dem pour sànki ko loolu moom lu métti la lu doy waar la sànq ak euh, sëñ Basiru moom sëñ Muntaxa Mbàkke dafa ne wax dëgg yàlla tubaab bi dañu soxor rek waaye deux kilomètres rek doyoon na ci ndax fii àll bi dafa surux ba pare dafa profond ndax gis nga ndox mi sut bi gis nga mala yi fii wax dëgg yàlla nit munu fi nekk ñaari fan waaye li ma xam rek mooy xam naa ne ñi ko def daal ñu soxor leen te soxor moom amuñ njëriñ ndax yàlla day fay yàlla fay na sëñ Tuubaa te fayul na ko ndax gis nga fañ ko doon jëmee nii mooy Mayomba kilifa yi ñëw nañu indi caabi Mayomba teg ko ci loxo euh, sëtam loolu rek da di ndam da di victoire bu rëy boo xam ne kenn xamul mu toll moo tax àddina nuy nit di def rek man gëm naa ne na nga def lu baax def lu am solo mais nag sëñ bi sonn na sëñ bi daj na dëg-dëg su ma ko xalaatee sama xol day dëgër metti na lii ko dal yéene ma ko sax sama noonu moo tax maa ngi woo Sénégalais yëpp Sénégalais yi fu ñu mënti nekk nen fexe ba caravane bi ñu xool ko essayé ko pour gën a xam Sëñ Tuubaa dinaa ko jëlaat xam naa ñu ngi dugg ci oto yi waaye sëñ Ahmadou Touba ñaan di jàmbaar di borom xam-xam génn fii nga xamante ne ci école yi gën a mag ci Sénégal ndax école yi bi ko fi tubaab yi sos am na luñ bëggoon sëñ Ahmadou tey lan nga yëg Euh, li ma yëg neexut a décrire dafay mel ni day partagé ci diggante xol bu fees li ma yëg dama wax ni neexul a décrire ndax dafa mel ni day partagé wu ci diggante xol bu fees dell ak ay laaj yoo xam ne caravane bi lu muy gën di dox waxtaan ak mbokku ci biir caravane bi mu may gën a gind ci laaj yooyee waaye am na ci yooyu deesu ko mën a tontu mukk am na ci yooyu da ngay delluwaat ca mbinduma mbindum boppam lu mel ni jasaaw shakuran atu fi jawaabi abdou latif am na ci yooyu dangay ngay ci ñi nga xam ne daa taataan ci moom wala di taataan ña taataan ci moom te ji ci gën ràññeeku muy sëñ Moussa Ka am na ci yooyu da koy foraat ci livre yi waaye dara du expérience boo xam ne yow yaay doxal sa bopp gisal sa bopp donc mani dafa am lu lay traversé xol bu mel noonu waaye ndam la ca topp mooy dalasal xam sam xel nga xam ni sëriñ bi dafa nekkoon ci diggante boo xam ne c'était partagé entre le monde intelligible bi nga xam ne ñun ci la ñu ne di gisante di laalante di xoolante di tàppante kenn ku ci ne bu waxee sa moroom dégg la kenn ku ne bu jëfee nga mën a évaluer nga mën ko évaluer ak nag le monde inintelligible bi nga xam ni moom moo ko waxal boppam sosaluñ ko ko dane assiru maal abraar yi xiina assiru maa ngi dox ànd ak gaa yooyee nga xam ne dañoo daj ngërëmal yàlla ba noppi ca waxtu woowu may dox te du ñenn ñu dul waa ahlu badrin te fii waroom xam-xam yëpp wax na ni li fi tase ci yeneen xeet yoo xam ne du ñu ay doomu adama lu weet lu weesu li nga xam ne xam nañ ko ci ay jinneeg ay nooxóor ay seytaaneeg ay yu bari fii condensé la kon creusé la boo xam ne xeetu doomu aadama xeetu être créature yëpp dañ fee dajee ndoo ñu yónni fi waaye sëriñ bi man maa ngi laaj ku ko fi doon toggal maa ngi laaj lu mu doon jëfandikoo xanaa sax buñ ma neen ndox ma muy naan dama naan xaj na mën na am lac bi mu ngi fi woon wala ndox wala wala océan bi mu ngi fi woon ci wàllu naan waaye ba tey du eau potable ana lu doon jëfandikoo ana ko ko doon fóotal ana ko ko doon jàppale bagaasam waaye jaala ni asna xadim la li man lahu fadlun yadoom wa saana nii fii xidami saana nii fii xidam yi nag mooy wane ni kon yàlla moo ñoŋal la mu yor ba tey ma mën a jàng wakaana xaqan nga mën a jàng xeesul labraar kee mën a jàng matlabul fawzeyni kee mën a jàng muqaddimatul amda yooyu yëpp nga xam ne dañ koy limandoo buñ ko tasaaree ci suñuy njabooti gi génération kenn du ko jeexal karamati xattu tey jii voyage bépp effervescence intellectuelle bu ma nekkee mooy di laaj di laaj eh. wali